asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jox seen wàccuwaay ñu ñuy teewlu à di jànnoog yéen tey ñu ngi nii euh, si yëmbal euh, la ñuy ñëw tey euh, fi ma taxaw ni moom mooy kër di ndaw bi nga xamante ne nii moom la ñu faat démb ci bërëb liggéeyukaayam di mécanicien ay atam toll si si saa si waajuram wa ilaa ay parents am la ñu ñëw seet si tey laaj leen naka la mbir mi demee exactement waaye yite ki nga xamante ne moom mooy patron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

maîtresse la may wooye mu ne ma maîtresse dama nga toog lëngu ma dama bàbb ma dugg si néeg bi sumi sama daal rek daal di ko sol daw dem ma toog fi ba ay 6 heures papa am wàcc daal na ma yow tey di nga am xaalis ma ne fan laay jëlee xaalis moom sa doom mi ngi dépanne oto te daa bëri tiitër su ñëwee fu jaar jox la dara ma ne ko waa kay yàlla baax na su ñëwee moo joxee ma jënd daal ndax dina wut jënd daal ñu toog mu ak papaam di waxtaan léegi papaam ne ma kaay ci kër gi nekk fii ndax dama fa am ngoro gu bees man ak man gungewuma la ngay ngoro dama booy damay ngoro ji ma dama am sama soxla may dijjanti waaye papaam tëdd fii ma génn fii dem suñu kër benn dëkkandoo jóge fa taxaw ci buntu kër gi ci àngal bi nii rek oto police bi room ma fees del ak ay policier sama dëkkandoo bi ma soxna Diop yow oto police ne wàccul fii laaj la masque nooy def ma ne kon bu keroog nga xam ne maa mën a daw damay daw daal dugg si rox bi dugg sama kër dégg pare guñ sax benn xaritu magam daal di may ñëw rek daal di may yëkkati ma ndax ñoo tax ñëpp waa koñ mi ñëpp tànt lañ may wax ndax ñoom cër buñ ma jox daal dama tànt yëgoo xew ma ne ko lu xew buubu mu ne ma tafaa nee na bàyyi seex lañ dóor bal ma ne ko bal mu ne waaw ci ma tourné sa doom muy lu ma naqari lool lu metti ci man trop trop bëriwul tolloo ñetti at dama ko yaayam jox boobu maa ngi am sama taaw ba am juróomi weer yaayam yëkkati ko ne ma soxna maa la ko jox waaye seex xam laa la laaj ma moom nekk ñoom ñëpp nekk bu rafet di jóge ko daanu di ko daanu fasoo liggéey bu dee liggéey daa ko tox ñoom waaye bañ màggee tamit fer nañ samay rongoñ yooyu ma dara lu ma naqari kii dong laa am ci góor xam nga ni kii moom ko yaakaaroon du ma dund waaye ñu taxaw ma ma opéré fi ñaari yoon ñu taxaw ma def seen alal ñoom ñu mag joy ma añ joy ma reer joy ma ndek ñoma ma yor dekkal ma di ma wodd di wod sama doom amu ñoom benn problème Baye Cheikh yaayam xolut yorut lijjantiwul laaj heure ma way wax ko ci Baye Cheikh mu ne ma sa dom la bu dundé sa dom la bu déwé sa dom la dem gi bett ma trop naqari ma lool ci Baye ci Tidiane Diop amé jot nga fa dem gis mu no wax dem xalé yi ñepp dañu dem ñu ne ma do dem ngay tok ma tok ci kër gi sama xol jeex na torop ci Baye Cheikh am naa lu ma massa métti na lol métti na lol massa nga yar ko depuis ba mu amee ñetti at ba tey nekk ci say loxo yan seede nga ñu mën indil si moom na yaru rek yaru rek tooj jimbalak mbalak fu mu toll we dooj ji mbalak papaam njànku la koy woowee su ñëwee ne ma tante ana njànku sama papa daa am jabar ju bees su ñëwee mu ne ma tànn ana njàng ko dem na jaxaay su ma ne dem na jaxaay mu ne moo néeg bi ak mbàjj mi fay tëdd tëdd tëdd ba teem jot bu wàccee na ma ana njàng ma ne ko xanaa nga yaakaar ni njàng saa yu xëyee dafa war dem Dakar heure bu wàccee loolu la may wax kaf ak man réew ak man bàccee amu ci moom benn so naqari dara wala benn jafe-jafe école loon njàng école bi baaxut suñ ko joxee symbole mu gàddu ko yaakaar ne lu baax la bu ñëwee kontaan tanda tay man na jox béjjén yi ma ko yow ya bon ay béjjén yi jox la ko kontaan nga yaakaar loolu lu baax la lii baaxut miraan nga motax ci la papaam génne dugal ko garage nagam gi dim bañ ci mom dara moo ngi yor wàccee seen papa lepp wàcceel ma lepp sama lepp fi sama neeg la may fekk tak jabar mu yor ma mo loolu yëmul si jamono ji ak doomi jamm nga yor ko jamono ji jamono ji ni metté ni ñom xoolewu ñu benn bët lu may yaay ñepp tante lañ may wax tay seex ma ko ñaan yàlla xippee ji aljana yàlla eggalee ndawam yamal xiyaam sama xol seet na ci moom seet na ci yaayam ndax yaayam benn yoon na ma sama doom nangam wala sama doom lii man maa koy topp boo amee 1000 francs yóbbante sa yaay boo téeméer yóbbante sa yaay waaye yaayam bëggu dara dara dara lu ma ko wax mu ne ma ci bàyyi seex dara lu may ñëw tooj la yebbil la njàng nga may ma sama wàll waaye soxla ma ci bàyyi seex dara mu tàggoog man tàggoog ba rafet bii xëy suba liggéey gisaatuma bàyyi seex am ma naqari lool bàyyi seex sama xol jeex na ci moom ñu ko rey yàlla na leen yàlla dafa gàggal bu ma tàggalee sama doom ji yal la yàlla tàggalee sa njaboot vraiment mi ngi noonu xolam fees na mënatu la yeggale mu doon mbir mu métti lool te day waar vraiment papa maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziare tur bi naka la moom Modou Diop laa tudd waajur bu góoru Baye Cheikh ñu fa waaw maay papaam da koy mastaw bu baax d'abord naka nga yëgee li xibaar bu naqari am lu ma naqari rek ndax ku xëy sa doom liggéey woor ba ngoon war a ndog si ñu doo ko balu fes àddina la naqari sama doom yëmbal gii amul kenn ku benn pëlis bu ma sa wax jàpp naa doom doom biir wala doom moo jóg sama doom doo ko gis mbedd di ñuy taxawaal samay doom liggéey ñëw tëdd seen kër gi la ñuy def bu buur ne sakk leen masque ba ma ñëwee jàllo masque laa jox samay doom wàcc naa dem ne jaafa di foog moom ma jox ma lu ma ndogoo ma koy mbala rek waaye man sama cere soo suba sax booy damaa war a woor ndax man tey jii daa wóoroo man mi tey jii daa wóoroo na woor léegi nag ma ñibbisi bi ma ñibbisee ma toog ba si yàgg ma bëgg a teg ataay xamatul may teg ma gëlëm nee naa tonton génne ma baraada kaas yi mooy génnee baraada kaas yi ba si yàgg ma fàtte ko ma dem ba fee jaawale daal yi ma ñëw tëdd su ma toog ba si yàgg sama xel nekk ni yar nañ ko xam am na ay doom ñëpp ngi ñëpp ngi liggéeyi nañu waaye moom dong la sama xel nekkoon. mais ne damaa yëg ne ma tey may ñàkk sama doom man man ma dem garage parce que man ah garage da wutuma fa dara daa toog rek ñu woo ma téléphone na ma sa doom rey nañ ma ne ko loolu ñu ne police ma dóor nañ ko bal ba seen yoon waaw nii laa ko bi ma demee ba bëgg a ñu ne ma bu ko laal waa am nañ fa nekkoon ay sapeurs ñoo ne bu ko laal amoo droit laal ko bi ma demee ne dem naa police police ñu nga police xam nga lu ñu jàppee nit ñi ginaar police yi moom ginaar lañ jàppee nii ndax nit mun nañ kaa réussir. ba 11 dugub te mu leen kaa jël xam nga du yoon temps boo la fa def na fa 6 heures lañ ka rey ba 10 heures te 11 heures parce que mun ñu ka jël police ñëw te ñëw ndax xam nan lan def hôpital bi ma daje ba demee dem xam nga du ñu ay policier ah dan ma ne yow da ngay jël néew bi andi ko ba essence yëmbal xoola fi mu dee fii ma dinaa gàddu ne yóbbu ko essence yi ma kon ka ñoon bu leen yéex ñu rëyuñu ko police na doxee noonu. léegi nag man sama doom ji baaluma kenn du àdduna du alaaxira du ma baale kon bu wax day leer baalewuma ba àdduna baalewuma alaaxira baalewuma te alaaxira na mooy fu dëgg fi ku yaakaar na fii daa wéy nax nga sa bopp suul naa sama doo jabar suul naa sama doom te sama doom ji boo see dara métti koor ga koor ga mu deewee xam ma xam bu ndaw woor ba ngoor ab di ko fe dóor ko ba rafetal bu dee daa yóbbu léegi de si si damaa mu deful liggéeyam si nga yëmbal gi waa yëmbal ray rek lan fi nekke fekkee ne da daneen ay rey nit nag ñun para nan bu ñu jënd suñuy doom ñun para nan kenn susuma rey wax naa ko police man du ma dee benn police di ma ray du dee nit di ma rey du mujj fenn xalaatatuma ko sama dund gi sama doom yi barke Babacar sama yaakaar képp ku ci faatu police faatatee nit bàyyi boo nga xam ne police bu ma dajee dinaa la nan baa sama doom yi te buñ bëggee rek xam nañ fi baan yi nekk ñoo gën a baan fuuf nan bàyyi sama doom yi sama doom yi nañ leen ba nit ku nekk ci kuy ku nekk ci kaw tali du nga kaw tali man ngaa dóor balu fetal waaye roomu nit rek ab ruq xam at léegi ruq la ruq bi jaar nii ruq du ab dina ngay room ab di trafic ruq ab jàkkaarloog ay nit di door bal fetal xam nga loolu jaaduwul ki ka ki mu njëkk a gis da kaa njëkk daa gis bal bi. moom na naroon a dee waaye moom dafa taxaw na xujju rek xam nga am njoola ku gaar si bokkuñu waaye kooku daa waaf bal bi dégg naa fii la ka dal yurgu sotteeku buusewul yëngatu ba mu ñëwee ñuy wax oh, aw kii dara foncé ci moom ma ñëw police dem police police ñoom ginaar la ay ginaar man police du rey sama man dee moom a ko gënal te man dong du ma dee man Bill Diop du dee man seul xalaatutuma ko përis rayet sama doom man ma dee man dong xalaatoon mu ko dee benn yoon la te ku ne dëgg jël sa wàll bu doon dund nguur gu neex la yonante bu du dem nguur gu du nguuru yàlla day jeex nag 60 ans doo ko wees ñu futti say kenn nangu say carte nga dem sa yoon kon rey fi nit nit ñi nañu xool li ñuy def xalaat na suba dañuy taxaw ak jàkkaarloog sunu borom lu fu waaye waxte àdduna da nga ko waxaat man nag sama doom ji dama bëgg ñu jàppale ma ci taxaw ma sama doom ji ñu xam li ka rey naa xam ke rey sama police xamuñu ko ndax autopsie bi pareegul nee na lënd laa gis xale bi jotaguma ci xale bi maire yi nag woo nan ma fii am na ñu ma woo waaye gis ma fu kenn. autorité ñëwagul. gisoo ñëw fi ay téléphone nag lan lay woo waaye gis ma fi kenn bu ñu mën naa rek la doon man yoru juruma koy torox man ñu maa torox loo. ndax ba may takk aawal 19 ans laa am ku takk aawal 19 ans yor sa bopp gisoo ndey gisoo baay di demal sa bopp ba ak fi ba jug juróom fukki at say doom na la nopp ñu xëy na bëgg a faar sama bopp policier ma doon rey sama doom sama doom bis buñ ko nga man xaw ma ku ko rey waaye dootul rey lu sant Diop sama doom man nag xam nga lu ma dal sunu borom moo def dee mu seet waaw su ma toppoon ñoom ma topp yëmbal police dootu yëmbal waaye nag dafa am na ne comme ne si si dañ dëkk dafa am yoon bàyyi nañ kaak yoon yoon def liggéeyam waaw noo dossier bi il faut nga jël sa doom ba li la wax dossier bi am na kayit bi ma jox waaye damay suuf sama doom ba pare doo bu sama dossier ndax feeg mu ngi fiy dugg doo am jaam si ay rakam dañuy jooy ay magam di jooy nit moom feeg mi feeg denc ñu kenn du am jaam di ko denc ko doo nga tax nga am jaam moom liggéey la def woon sàccul fenul amoo tolloogul fu muy amee xaalis mu si man sama doom man sama moom mi baayam ba mu ba si nga Dakar Dakar laay liggéeyee musuma toog fi temps yi du ma toog ba midi damay dem def la may def dem sama yoon man nag dama fee nekku ñi benn fu ne yëmbari du tey lan ray de tey mooy troisième fois te ñoom dafa yaakaar ne doonoo am dey jax na bu nu reyee ñu teg leen ci tànk waaye na lu loo waay def àdduna da nga nan xalaat suba ki ray sama dom ñaan ne yaaru jur dom te ñaanu yàlla jur doomam ba pare nit rom ko dur ko bal nañ seet li ñuy def bal da am fuñ ko wara tiré tiiree dof dof yoro ban fi ko da fi sa mbolo mu dajaw wala nga ci ñuy taali pënu nga nga bo boo si nga bu ko ko ñu lay kay affaire yoy sama yoon nekku ci ko jël waaye ta garage ba la ko pompier jëlé kuy ma du la fi sa bi garage sa kay jëlé la fa te police di ma wax ne jëleel police ma jëlee ko hôpital bi yóbbu ko ba essence yi yëmbal ñoom ñu jël si ko waaw police yëm ñu duñ seen fowukaay duñ ma su ma na la defal barke ba bakk tag ma defal li bëgg ñuy xoolaat seet seen digganteeg seen borom ndax fi fii bakkan bu mos dund da nga mos ku la naaw seen zaay xatil bakkan bu mos dund da nga mos dee kii wàllam la jël sama wàll ngi ñëw ñi ka rey ba noo toog fukki nga dégg kun ci suul kon rayante bi amul benn intérêt man nag sama doom deful waxul rey nan ko mënatumaa jot sama doom waaye naa fexe nan ma wax kan moo rey sama doom waaw loolaa soxla am nga si droit Cheikh ay atam si ñaata la toll. Baye Baye Cheikh la la onze bii dina ah, a ñëw onze bi lay am dix-sept ans ma ngi si man fii ku fi toog am cinq ans am nga carte d'identité kon seetaanuma samay doom fii ñoom seen boobu sa dañuy rom booy booy 6 ans yi dina wax sama doom yi dina an seen i carte d'identité ñu génn ñu leen booy yi dañoo am taxaw ndax maa bëggul ku ma fooyee man Diop laa sant kon du ma fooyee kenn man boor bu ne def leen nangam lam santaane ndax moo fi nekk ñoo ko fal lam wax laay def policiers yi dama leen respecté nan ñu dañ leen a fonk nan fonk peuple bi ñun duñ ay ginaar pondeuse xam na fu la neex a dër bal nga dem rek la ko mu jeex bàyyi seex baaleewuma ba alaaxira ba ñuy dekkiwaat doomu ñun sax dee danaa man jàng naa alxuraan xam naa ne bis tey jii maa ngi wax est-ce que suba Baye Cheikh na ñoom ñi ka rey nañ jooy seen bopp Baye ba mu dee koor la dee man dama kaa ñee dogul lam bagage mu yoroon lañ ko reyaale lam yoroon nii ci loxoom mburu mam jëndoon nii ndax suba dama ju rey sama doom ci ngelaw bàyyi naa léegi yàlla yàlla na ma yàlla àtteeg yëpp bu fekkee ne yàlla moo moo yàlla moo mën naa seetaan waaye ak mën a faj yàlla mën naa seetaan wala mën naa faj sama doom yoo xam ne xamatu dara nekkatu ba démb la ma kenn xoote ñaw ñaari ñaw nga fe ñu ñëwaat ma daam neel ma ko xam ne ma kaan jëndal biton yi lañ doon jënd démb rakam bi mu bokkal ndaay ak baay bi toog moo toog ci moom téer la ke ñu ngi fii ci kër gi ay ay xale lan dama ne la bu leen génn seen i diplôme boo demee seen i fa ay diplôme lañ fa taw foru ñu métier man joor moo fi wane danoo dem ba jàng jox leen diplôme waaye dañuy ay gono moo tax bëgguma ñu génn ndax bu xamee fa ñu jëm dañuy dañ àgg ma téelee kër gi xale bu ko neexoon man na man naa dem sama yoon waaye su ma meeroon tey fii damay toog ba si àgg ma meer soxla cinquante mille ma dokanee damay xool ku fi nekk ma dokanee su ma dokanee dañuy wooten seen biir Sans papa moo dokkani ñu na sans papa nee dina ko jox cinquante kenn taal fi sé kenn é eh, lo fi def nga na papa nga ne fi di ah, ma cinquante mille soxla ñu dugg di sen sen biir ñu eh, joxal paa bi ñu jox ma barke seyd duma ma gërëm kuma deful dara bay laat mbacké suis la waxoon man ne sant kuma deful dara nous jox respect sunu doom yi ñu balé nak respect buñ buñ fekkee sama doom ci kaw tali bi moy moy muy xër nañ ko condamné à mort. may naa leen ko dama laax lu leer sama doom fu mu fekkee ci tali muy dawal vélo dama koy mbëkk oto moteur moomal ji moom koy moo daqal tuuti tuuti moo ma jënd moo ma jënd moteur oto xale bu daw ñu bëgg ju faata ba sama doom xale bu ndaw maa yaam tàqalu ko noonu waa xale bi daa ñëw dafa raat diggante ba rafet ndax bu amee xaalis. na ma papa man kay ah, xanaa yow booy ah léegi da ngay segale mais ah ñaata kan laa am ku mu njëkk dar rek foofu la ah loolu ma ñaari kan laa am du ma ba fii du ma ba fii ba mujj gi dama koy wax léegi yaa boo bëggee dara nag moo may rab jox ma dégg nga mu wax non yow dama na ku ma yóbbu ma ne ko na ko non na bàyyi sa mu métier la te man lay àndal te moom mën naa dawal yenn saa yi day dugg sax ma ne ko bësa mu sama wala trois mu tegg dem yoonam yenn saa yi ma ne ko bësa am mu bës rek ma def ma gën vitesse ma ma soxla mu dem mu dawal net su demee ba gaarax ma nangu bi dem xëy liggéey Baye Cheikh daa ku baax la xale bu ndax bu koor xel dal na waaye nañ seetaan rey fii ginaar yi ginaar la yàlla santaane nit ñi di ka lekk dara du ko ci waaye nag boo rey nit kay wan nga see mën a def dara waaye fekk nit ka xam ne deful waxul nga xool garage ba ba mu neex la rooma rek dóor bal fetal barke Seydina Mohamed noonu la demee bal ba xam ne da nga yur ko sotteeku xoolee xan audio bal fetal lañ ko dóor ci bopp yur ko sotteeku booy bi yëngatuwul yëngatu defu xale bi bal doy yuur gi sotteeku mu daanu mu ne këpp ñu na deena deena deena deena na seet rey yi te ñun ay jullit lañu sëriñ sitim ñi ngi seetaan àdduna te ginnaaw yàlla sëriñ si lañ yaakaar àdduna ak alaaxira alaaji abdu bu fa Sénégal am fa san toll alaaji day day jël àdduna yëpp woote ndete ñunu dëkk bi dañ kaa dénkaan waatu kutu santu Jóob santu Saar maa ngi nañ jóg liy dëgg ñu wax ko te xam ne dafa am ñu topp seen ginnaaw te ci ngeen lii raam ti ñag bi lay jëm te saa fa àggee din ko du yomb ku war wàcc yoon na la jaaral la yoon kenn bañu ko waaye nekk fi di raaye ku ma am ndaye ku ma amul nday si nga fi toll man maa ko xaaratu dee rek la man bu ma defee damay dee doom yi nañ leen fas fa ñaari far ñu rey ñu ñu fekk garage boobu moom police bu fa duggatee rey leen boobaa nag xam ne bis bu ñu duggatee garage rey fa benn picc te si sunu famille nan pare bay boobu ñu armé ba boobaa caaree gaar man soxla ma Tuuba dawuma Tiwaawan dawuma Cana man caaree gaar lañ may suul samay doom fa ma ko suul caaree laa koy suul bu ma dee ñu suul ma tiwetam masawu d'abord ci li nga xamante ni moo jot a am ndax mbir mi ba muy am démb fa la la fekk. waaw fa la ma fekk sama kanam laa waaw muy loolu naqari lu metti loo xam ne métti na métti parce que man ak ni ma présenté woo ku ma xam tey gis na écran di nga xam ne kii wax du tey la jëkk wax ci écran damay jóge fii yëmbal di dem ba tribunal di fa taxaw ay xale police yëmbal bii bu fekkente ni fukk yu ñu war a dox la ci dëkk bii intervention cinq yi dëkk bii moom lu fi mën di am justice moom dinañ ko dox ba mu tegu ci moom lépp sama kanam la mën naa ko wax te yàlla tax parce que ku dee dan lay ber sama soxna du ma topp samay njaboot duñ ma topp te billaahi lazi laa ilaha illa li may wax xaw ma naa yegg sama këram déet wala wax mu yegg yàlla la neex kon tey dama ni leen woon bu laajee dem jënd bàqee tableau sax billaahi dinaa dem jënd ko ndax xale bi nañ ko rayee ci sama kanam muy bal réel vrai réel tiire bopp bi bënn yuur gi sotti te action bi yëpp dinaa ci ñëw ginnaaw bi ma sante yàlla na julli ci sangub sang yi Seydina Mohamed sant sama ñaari waajur sant Serigne Touba Xaadim Rasul mais sant mbooleem tarixa bu nekk ci àdduna li leen waroon lépp def nañu ko lépp mbir mi xalaatul woon mu agsi fii bu yàlla dogaloon ba ne copp ñoom ñëpp ñu def intervention kon bakkan du tëdd waaye cas viol lañ waaye dem nañ ba léegi bakkan tëdd ñun nag ki nu rey ci ñun deful violence marsul dama koy wax ba ñëpp dégg ko. bokkul ci manifestation ab xale bu góor la jàng si métier am ci atelier bi bi affaire bi amee ñu woo police mu nekk benn euh, benn foule bu jóge ci station bi jëm ci mairie bi. ñoñu traverser jàll bi ñu traversé fekk na ma tëj sama atelier ak kànnaar ku xam-xam ni man duma dox ci violence parce que kuy doxal ay jambour say emprunté taxu la wax fekk xale yëpp sax dafa am benn dom ku nekk maire bi réeroon mu Cheikh Tidiane John ma koy nuyu au passage ñaari domam ma recruter xale yëpp ni leen dem leen wëri te xale dafa wor kon kuy dox ci loolu do dugg ci ay manifestation manifestation nak sunu dom deewu ci nit mo am intention jël mate génn ci fenêtre auto police bi rey cas bi ni mu demee mooy qu'est-ce que orange monnaie moo doon tàkk ñu woo police ci buntu mairie bi ñu leen ñëw leen ñu ñëw def intervention am nañ ci droit parce que fi nekkal bi ñuy dem ñu ngi jàkkaarloo man ma génn ci atelier bi téye xale yi kenn génn bi ñu demee ba fay ba pare ma génn samay xale ni leen dem leen ñibbi amoo ci droit xale bi nu rey bi ñu koy rey mi ngi egg saag dakkale ay loxoom tax huile am na benn kuy liggéey ci mairie koo xam ne ñu ngi koy wooyee su ma juumul euh, euh, euh, dinaa ñëw ci turam ci kanam. moom la doon montel ma tëram barki démb xale bi wallahi asim ku dee dañ lay ber mën leen génn leen ñibbi ñoom fay nañ la fay ba pare pourquoi pas ñu taal seen oto demaat ci station ba ful ba am fa manifestation ba am pour comme benn escosque orange monnaie moo doon tàkk xale yi ko fay daw nañ dugg mbedd jolof marin vidéo yëpp a ngi fi même buñ tëjee chaîne yi même buñ tëjee chaîne yi vidéo yi léegi télé yaa ngi ci kër yi image yaa ngi fi loolu nit faa ngi kenn du ko jeex man nëbbutuwuma dawuma ci yokkaa li ma bëgg mooy ki ma entendre yor dossier bi laaj ma ma wax ko bu mu yombal bu mu jafeel na def liggéeyam muy adjudant bi parce que papa boo baa ngi ne man bi affaire bi amee bi ñu dëppee ñoom dañoo ñëw ba tolloog ñu ñu taxaw croiser les bras ñu visé mété ci fenêtre yi ci fenêtre yi 4 bi oto boobu dama ko daan dépanner man oto boobu bi yëmbal di sos fii police billaahi lazi laa ilaaha illallaah écran laa génn bi nu ñëw indaale woon velo sama oto oto baarandooy sama patron wala oto Maguette Diop patron yi dañ may yee par guddi laajal commandant Gajaga mi ngi may dégg bu faatuwul te yàlla na ko fi fekk kon ñun social bu ne dox nañ ci mais suñ demee ba sunuy xale wax dëgg yàlla tolluwaay bu toll ni ñu dem ba rey leen ci ci ci as ci rien du tout neexul ñoom ñoo ñëw ba sama atelier visa ñaari bal benn bi moo dal booy bi mu dee beneen bi ci des dafa mel ni am intention rey ma wala rey sama naw lay ma taxawal mu génn waat deuxième coup billahi bu booy bee jëkk mu doog a agsiwaat ci man nga xam ni waaj ji bi mu gëddee oto bi accéléré ko oto bi dafa xaw a drapé fekk waa ji mu dugalaat na pistolet bi soqiwaat bal bi billaahi lazi laa ilaaha illallaah damaa romb romb fo Modou Fall ñoom samay témoin lan romb Pape Dieng jëm ci benn femme boo xam ne mag Alima Ndion la bu nekk seen TV magam bu am benn tut fii am yaram bal bi fii la ko jaar doo ko dal ci sama zingu atelier deuxième coup bi

doo ñëw ba ci atelier bi fekk ay mécaniciens yu taxaw sol seen i tëli yoruñu xeer fi looy mun am ku taxaw ci seen kanam ku leen di jëmmal seen jaatigi parce que man li ma fa nekkee mooy Adama Thiam mi ne ci sama ginnaaw muy bu xees bu xees moo seefu Tafa Tafa seexu seefu Baye Cheikh Baye Baye Cheikh mi gaañ Baye Cheikh mi bàyyi ma ma ko jébbal jébbal ma Tafa Tafa méccam da koo jàng ba man ko doog a ñëw foofu yàlla dogal Baye Cheikh rakkam ñëw fa mun ma yow laa koy jox. mu jébal ma ko bàyyi ma ngi ni di ma dégg ma jël ko charge jël ci responsabilité yëpp muy sama doom mais comme Tafa magam la ñoo bokk luñ bokk bokk seen baay ko Tafa bi mën naa yor bàyyi Cheikh parce que man sama toog bareetul damay dox ci social chaque jour intervention laay dem kon na dem àggale métier ci magam njaboot googu yëpp sama njaboot la ñaari patron amu fi man Ndongo Baye faal mooy patron xale yi bu convocation amee moom la ñuy jot bu xale yi defee bisit ci dëkk mbaa dara ñoom la ñuy woo moom la ñuy woo lu mën a am moom la ñuy woo kon man lan rayal rayalun kii papa ma nga ne yoonam nekkul ci CV lu dul dina topp dossier ba doomam xam ki ko rey ñu teg ko ci yoon man de affaire bi amee rek ma nettali ak film bu garaaw ci sama kanam la dee kenn ku ne xam na ni man ba ma gënee àdduna ba léegi tey laa musa a gis dund naa lu ne billahi lazi la ilaha illallah dund naa métit bu ne dund naa malat mantaal dugg ci àll bi souffrir jaaxle samay mbokk ànd ak man samp ma may ferte yëmbal ba ma fajoo ba tere damaa ñëwaat sampaat yëmbal di

sama sama emprunté pour intervenir balaa dara amaat billahi lazi la laa illallah ku dee dañ lay ber te soxna si nee naa la bu desee tey ma jënd 7 mètres percal benn baraak dem jënd tableau baqiya sama fit àgg na foofu gaa yi xam nan ma du ma dox ci hasard kul weddi nag laajal Ibrahima Diouf mi fi nekkoon lii nag dafay bari danoo bëgg mu jeex yéen ñi nga xam ne yéen ay presse bi seen yu mag yéen yëpp tëñ nañ leen léegi kenn ku ne fa nga mën a waxee ngay waxee Dakar Buzz sama chaîne ma leen di nuyu au passage du ma jóg ci di ko seetaan keroog bi mbir mi ne càpp sama kër laa nekk Touba lépp ci laa ko seetaan billahi lazi la ilaha illallah du seen jëmm jee tax bi nga ñëwee dama laaj ban chaîne la nga ma Dakar Buzz man la sama chaîne ci laa seetaane information yëpp dama ne buñ dafa jeex raye bi di am yëmbal yeex naa am police daawoo fi dëgg yii ñoo ko def maa assumé sama responsabilité wax ko. exactement kan moo. non mënuñu citer benn tur am na xale yu nu rek xàmmee na mais ki ne ci biir oto ne ciy giri mënu ni di waray mais am na ci xale yoo xam ne boo leen dajale woon tey ñun la kii la kii leen estimé kii leen xalaat ni moo rey parce que xam nañ ko ñoom xam nañ ko bi ñu demee police it bi ni mu demee dinaa la ci di kalaat parce que bi déegi amee entre tumaak sama sago parce que lii maa ngi koy doog a gis ne laa la dund naanu la mais tey laa mos a gis lii ay mbiram kenn xamul lan la soxna si ma submeeku sama yére daw topp ci oto bi na leen na leen na doon ñaari néew ñu rëcc ma parce que auto nit mënu ko dàq ma daanu xiif mar joy, ndax leen rey xale bi sama kanam rafet na ma topp auto bi nit ñëpp téye mën nangam sangam ma ne leen nag léegi am nañ droit am sañ sañnu dox sunu ñaxtu nan dem police dox sunu ñaxtu ni leen rey ngeen seen élément billahi wal kitab bi ma wootee kenn ñëwul jox xaalisam ma booleeg sama xaalis heure bi waroon naa fekk ñu def heure plus nangam yëmbal maa ngi moor mais ci social rek la dox barki Serigne Touba ñu dem police xoolal sama ginnaaw lii boo paree lépp laa la woon ak sama tànk ak sama yaram ñuy xuus ñu may dóori lacrymogène di ma dóor di ma dóor ma xuus ba génn ba dem ba buntu police dugg ci police bi. dem leen danoo rey sama emprunté jàmbaar wàccul xare xare borom a koy nettalil borom barki Serigne Touba xare borom a koy borom. jox nga sa micro koo xam ne leneen loola ci waaye wax lu dul ay témoins ñu fekk billaahi waxuñu lu xam ba ma àggee accident ba ma recevoir entendre ma ne ma sa empreinte la ma ne ko sama empreinte la accident bi c'est mon ami maa ngi ko nuyu au passage mais li dossier la amul affaire de doomu ndey amul copain parce que dafa dee na ko teg ci yoon sama dossier bëgguma ko yokk bëgguma ko wàññi bu ma ko kenn gonfleel bu ma kenn daggal ay wax di yokk mbaa nga may wàññi lu ma wax nan ko wax ba Macky Sall dégg ko il est responsable il est responsable kii dafa ñàkk doomam ci anam bu ko naqari duñ ko bàyyi dama indilaat la beneen cas mooy Ilimane Touré yaa ngi dégg jamono yee passé ñu rey ko faat ko jëli ko këram sans convocation dugal ci taxi ci benn patron bu ni big boss la transitaire la fay la nekk am moom problème au lieu que convocation mu dem fay ñu jëli ko dóor ko ba mu kawte dugal ko police yëmbal ñu woote waat en police jële ko yëmbal war koo yóbbuwaat sans sans convocation booy bi ñu yóbbu ko xooma foofa la dee xooma ci yoon wi mais dee na nii lañ ci toll Ilimane Touré ki jabaram ak ki wax ci réseaux sociaux dafa doy dafa doy soxna yi ku dégg xam dëgg ni dëgg gi man duma dox ci violation fu ma woo ma wuy fa commissaire bu bees bi mosuma xam nu mel dem naa police ba ñëw xaw ma kuy commissaire dégg naa rek ñu jox ma téléphone naan waxal ak kilifa gi mais pourquoi mu ñu assigné ay responsabilité en tant que commissaire ñu tànn la ci gox indi la fi yëmbal gii musta am ay crime musta am ay raye lu ñu daan am problème kër grand sëriñ lañ koy arrangé wala kër chef du village wala jaraaf ba ñu ngi fi ba tey mais ñoom ñoo fi ñëw samp seen kaaraange ni dañuy aar ba pare wëlbatiku di jël ay méthode di ñu tiire ay bal soxna si wax bu ëbbee bu xool fay sa rek leneen mën naa am te wax mu yegg yàlla la neex te njuum te dafa gaaw te gaa yi léegi dañoo am habitude ngay wax ñu jël ko ci yow ñambaas ca nan ma waxal li ma wax buñ ma ci yokkal buñ ma ci wàññi di leen ñaanal nag li ngeen def wax dëgg neex yàlla mënuñu leen a fay Dakar ba danoo ñaan yàlla ngeen dem ba mel ni RFI ba président yi génn di dem di waxe ja RFI bàyyi seen i seen fii te seen yi mën a dem ba àdduna wërngal këpp wallahi azim dama leen di ñaanal loolu parce que dëgg la yàlla bëgg na tëj seen yëpp te ngeen des fi même bu leen tëjee maa ngi sama portable sama Facebook laa wax biig parce que dañoo tëj sama connexion daggal ligne bi a dëkk bi ma dugg Facebook publier ko sama emprent lan rey ki sama kanam dafa métti dafa métti dafa métti nan ko teg yoon mu leer loolu rek la amul leneen lu ma ci wax nan topp dossier yi ko man mu bañ a mel ni dossier yi fi amoon ñu xam ki ray suñu rek dossier bi fi mu toll mooy police ñëwul sax def intervention ba ma demee wax leen ko dañ ne yàcc na yasar toog kenn ku ne tikki say tànk ak say gaa ak say mas ñun yoruñu dara ñu protéger ba fees takk ay la karomation ñu dugg ci seen biir ñu door ñu ba bëgg a dee dinaa la woon samay gaañ ñu taxaw ñun en personne mën leen nan dem ñu ne duñ dem mën leen ràññee nit di seen mu yow la dem sapeur pompier fa la ñëw ñëwul fee yëmbal marin commune Daouda Ndiaye monsieur le maire ñëwu fa police la sapor bi dem taxaw ak oto bi ralenti fa ñaata minute ñaata heure ma papay xale bi ak samay témoin benn deux heures nga naan ma vingt heures ñu doog faa jógee nii léegi dem leen ngeen defee ngeen arrangé foule bi waxtaan ak ñoom bu ko defee sapeur ñoom mën leen yéen nag su meeku leen ngeen masque wu def civil comme ñun ñu dem traité booy bi jël ko bala moo yàqu parce que kee bopp ko dóor nañ ko bal yu gisoon ñun man ndax la ndax bal balance la man leen eh yéen a ma a ngeen seen liggéey lii bu mu am naxa sax loolu laa nekk police dafa leen naa leen roy tey police maa joxe sama bakkan ñëw dugg ci ñoom romb seen i élément romb oto bi rayan sama booy ni damaa bëgg téye sama fuul ñun ma dañ lay gaañ boo jàng mën na maa seer ak ñeneen am na ñu ma fa xam ñu bari kon du ma violence maa jiitu lakkaromacel yi tàkk may dàq samay mbooloo di leen def nii di leen def nii reculer leen reculer leen reculer leen ba ñëw ci essence bi ñu daal di may rëccati ñëw mairie def tout droit mairie ñëw jël ay pneu di ko taal xale yu daw ak mag muy daw bokkul ñu jiitu ma ñëw taal fay pneu ma dem mairie taxaw fa ni leen bu ngeen taalee maire bi taal leen maire bi suñuy këyit fi nekk maire bii ñoo ko moom Daouda Ndiaye moom ko danoo war a voter ëllëg lii ñuy xeex xam nga lu ñu koy may mooy carte parce que nee naa leen président Macky Sall ak fii mu toll man xaw ma reculer xaw ma bañ a reculer mais ñi nga xam ne ñun ci seen ginnaaw lañ topp muy kilifa yi wax nañ mënuñu ci dara ñun mënuñoo wax ba def mënuñoo wax ba mu def soxna si il est maire la laa taxaw booy bëgg maa taal ma négocier ñoom négocier ñoom maire baa ngi may woo di nuyu abuli attaché cabinet maire mi ngi may dégg téléphone ak lépp xam na li xew man du ma violol li waa te bu doon police dongo kon maire yëmbal tàkk tey kenn gisu leen parce que ñi ma mënoo génn mais maa taxaw teg sama loxo ni leen taalaale leen ma bu dee da ngeen may wékk ponu taal ma sax wékk li ma ponu taal ma mais bi ñoo ko moom kenn du ko taal dafa doy nag dafa doy ñu naan booy yi danoo manifester wu danoo violer li waa amuñu amuñu amuñu autorisation nangam sangam fii xoolal ay mécanicien yor ay tëni deeg seen tëni seen i loxo tak tak tak huile kale yi nekk ci booy bi mu woor ba ngoon yor ndogu mburu ndogoom ba ngoon war a dog 17 heures 18 heures ñu rey ko barki Serigne Touba papaam ñëw na ci atelier bi waxtaan ak moom kaf ak moom et cetera bari ki démb papa ma ngi nii di ma dégg bil ñu koy wax mu jóg dafa ñëw ba sama atelier ma xale yi yow laa ko joxoon ëllëg yow ma la xiyaam dinaa la laaj règlement de compte noo leen yare ak noo yore ma ne ko na ci dal maa ngi fii mais tafa ak bu booy ñu ngi def li leen war booy du am benn plaignant bu fi billaahi mu ma koy dénk ni ma damaa bëgg fan yi sax ma wutal ko permis su ma ko wutalee permis rek retraité comme tafa am na permis booy nii nangam sànga ma ne ko bil yow jàmbaar nga lii lan tàggatoo ma ak bil mi ngi nii bàyyam du ma fen mun ma njaboot gaa ngi noonu kon am naa audience taxaw wax publiquement mun Ndongo Baye Fall lu ma ci góobe gar ko dossier bi na tege ci yoon na leer na leer parce que lii dafee mënoon a ñàkk xale bi papam mu mu jóob la tudd yaayam yaayam Awa Sarr nag du fa du Adji Sarr de Awa Sarr mii billaahi du Adji Sarr billaahi du waaye nag lépp dina leer Macky Sall dina leeral li teg ko ci yoon ki nga xam ne moo jëloon ay ay nitam ni leen nan leen dem jël responsable décret jóg ñun nan dem yëmbal tali marin kooku xam na ma xam mi ngi woon ci oto na wax ki ray ñun ki ray rek lañ soxla parce que policier bi boo bokk ray mais ki ray lañ bëgg mu leer affaire Ilimane Touré nii leen ko nëxës nëxësal affaire Abdoulaye Wade moom la xale boobu ñu tuddoon Abdoulaye Wade nii leen ko nëxës nëxësal dossier yi dafa bari yu nekk dañ koy nëxës nëxësal rek def ci xelu nit ñi leneen soxna si wax dëgg neex yàlla li lu metti la suñu xool jeex na mënatunoo wax bon li ma la wax rek li ma la wax rek tooñ nañu daal tooñ nañu yéen ñi nga xam ne nag ku yuuxu yéen la yaakaar dootul leen suñu yuuxu ci président Macky Sall mu gis ko Marème Faye Sall gis ko xam ne dafa am doom Amadou Sall moomee mi ngi fii war ay otoom yu lex est-ce que booy bi nu rey mënut a woon nekk président wala député wala ministre am da ngeen a defee ne ku jàng rek warut doon dara te si. man yàlla na yéex bëgg na maa gunge sama njaboot ba ca kanam dund li mag ñu dund liggéey ci histoire Sénégal comme mag ñi baax ñu neen ko fi defee woon mais billaahi lasi boo duggoon ci samay vie privée nga xam ni man ragaluma ragaluma loolu rek laa amoon lu may dénoncer pour wax ni leen police seen liggéey moo compétent wul parce que ñoo yor suñu kaaraange ba pare wëlbati ko dinu rey wax leen ndax am neex na léegi nag léegi nag mënuy def ñun est-ce que dañoo mën a révolté wu rek wala dañuy dem fekk Macky Sall pare duñ ko def leen war leen war mooy lii dem ci média yi wax leen li xew wax leen cas bi ni mu amee parce que lu fi am ñu jaxas jaxasee ko jax nañu dimbali lillahi wa rasuli dossier bii ñu tegal nu ko ci taabal fi mu war a jaar ñu jaar fa ñu am ndam mbaa ñu ñàkk ko waaye ñun manifestation billahi lazi laa ilaha illallah manifesté wun yoruñu xeer yoruñu appareil filmé xale bi dafa dee ak teni tarawaayam ak ay loxom takk huile billaahi wallaahi. Baye boo ma doon indil ay seede si Baye Cheikh Diop tey ban genre nit la wax. oh mënu woon a gudd fan. Baye Cheikh mënu woon a gudd fan ku sotti bi police ñëwee ñëwul jël si ko ñoo ko jël yóbbu hôpital Dantec ma nga fa bi mu demee léegi papaam taxawu na ko taxawu taxawu taxawu moom moo demoon ma koy woo téléphone di jokkoo mu ma nekkoon fii ci kër gi waaye xamal ko ni ko leen ni nga ci jot nee na leen nag na ngeen ma dimbali ba sama doom biiram bu ko kenn xotti. biiram bu ko kenn xotti dañ koo dóor ci bal ci jë bopp bi toj yuur gi sotteeku kuy autopsie na nga ñu dimbali ba na nga xooli bal seet fu nekk mbaa leneen mbaa leneen waaye biiru xale bi nan ko baax ñu suturaal ko ormal ko xam ne julli la nitu àjjana la billahi lazi la ilaha illa allah dee na ci anam woo xam ne xalaatuma ci moom ci addunaam parce que sa xale la woon man maa doon wax ay 22 ans 22 ans mais papaam ma sax matul 22 ans ay 17 ans la am xale bu ndaw foo ko fekk ba ñi nga jëkk a seetaanal youtube yeeg stati yeeg xale yeeg ñoom seen xale bi soxna si li rafet na lii ku mu doon sa doom di ko nangu président Macky Sall dafa am doom Marème Faye Sall daamam dafa am doom tey lii bu daloon Amadou Sall tey jii kenn du ko lijjanti kon na xool ci loolu ba moom mu ñëw leeralal ñu dossier bi dossier bi rek lañ soxla mu leer ñu xam ki rey kese.